asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi football TV nuyu na leen bu baax yaax leen di am mbégte saa né ne dafa vidéo info de dernière minute léegi léegi léegi la ko lire léegi léegi la leen koy andil xamone ngeen que yéen nañ ko don xalaat ñen ñi après match Sénégal ñu éliminé ñu tiro au but match bu xamante ne 0-0 8e de finale coupe du monde ñun ak France Sénégal U17 France U17 franchement tiro au but la gagné té dans le match on a eu énormément d'occasions ratées comme d'habitude ah hein. xam donc ñepp am frustration tay tay ñepp mer képp ku seen match bi par occasion yu am en deuxième période da ngay mer du coup euh, avant match bi benn bombe moo jotoon bombe bi mooy lan mooy que waa France dañoo am benn joueur boo xamante ne dafa inéligible maanaam amul droit jouer et que boo nekkee équipe sélection mën nga déposer recours pour que FIFA jox la dëgg loolu la waa Burkina Faso def. Yanis Issoufou Yanis Issoufou boobu nag waa France dañ ko utiliser te moom dafa jouer euh, éliminatoire Coupe d'Afrique U17 euh, bu xamante ne moo lay. après yóbbu coupe du monde ba pare joué tamit éliminatoire coupe d'Europe te loolu FIFA da koy bañ FIFA neen loolu boo ko defee équipe bu xamante ne dafa def recours dal sa kaw FIFA nee na équipe boobu lay jox dëgg comme que ñoom ñoo bind seeni règlement bind seeni article teg a teg nañu respecté seen article du nag avant match bi la information bu génne xam nga lu lu lu bind lu lu RMC bind lu ñu toog plateau bind te ko man mi xam ne dama soob dama dem déglu leen mu xool ndax tubaab bi ndax ñoom dinañ nekk si dëgg wala mais ñoom sax toog nañ ne ah lii man na antu mais xëy na naa Faso dina rëcc mais ñoom Sénégal bu lañ jàpp ne mën na jàpp mu may fàttali nawetaan mu may fàttali nawetaan ba parce que man dund naa sama équipe dem na final ñu defal ñu recours équipe nawetaan dematuñu final gars yi joué keneen joué donc parce que dañ tegoon jour bu xamante ne waruñu ko teg dafa joué fële wu joué fii ñu bëri dund nañ ko je pense li wax ni ñu xam nañ ko donc bu fekkee néewtaan lañ koy def wutuma à ce niveau de compétition boo ko defee da ngay ñàkk. je me je me rappelle xaw ma na gars yi ñu koy fàttali même Real Madrid mos nañu am problème boobu autant temps de euh, Benitez si je me trompe pas avant que même Zidane si je me trompe pas c' était ça jour bu baaxee Valence ne mu ñëw kii ñu fexe ba tekk coupe du roi man daal noonu lañ ñu def ba waa Real seen mbir yaaxu. donc réglement règlement la ñeneen ñi naan nag non doon nañu si terrain bi nañu nangu defet dem xam nga donc lii dafa ñaaw sax à onze dañ ñu gagné jërul def recours bon pour man recours bi quoi qu'il arrive koy def ndax day sotti ndax du sotti nag ndax day antu ndax mais yow def ko bañ ko def mooy erreur pour man saay loolu la règlement may def ko parce que ñoom bu ñu mënee dal sa kaw dañuy dal sa kaw boo fu yóbbuwoon ay joueurs ñu dem xool seen i yàq dañ lay éliminer règlement FIFA. ñoo ngi nii keroog massif sénégalais yu bëri bëggoon nañu dem jouer match la lan moo tax football ñu que dañoo dal seen kaw FIFA dafa dal seen kaw ñu mën a jouer xamante ne bëggoon ñëw ñëw Sénégal donc règlement bu dalee sa kaw da nga nangu yow donc yow buñ la mayee boo mënee ñëw bind article pour dal ci mën a am benn mbir amal benn mbir surtout que match bi démérité wu football nga leen war a football yow yaa am occasion raté tir but lañ la gagné France àddina du neex ne ba bu leen dëkkoor bu dara ñu naan non ñun daal ñoo ñàkk chance ñun ak nu ñu mënee Sénégal Sénégal xaw nañ leen rey fu ñu ko waxee gars yi ne non non match bi demee noonu a tàccu nañ leen mais par tiro bi dans le match wane woo leen lu ñu wane woo man recours bi dama si ànd à mille pour cent bañ ko def pour man moo gën a nekk def ko bañ ko def moo gën a pour man mooy erreur maanaam lu la yoon may yoon lu mu la may ñëdd ko ba nga laax boo koy lekk dañ koy ñëdd jël sa benn baaraam ba soomi dootoo ko gis ba kii di ba kii di raxas après dinaan li bool bi jarul raxas damay yerandi noonu la mel si recours lu la yoon may demal ba ñëdd ko ba mu jeex tak man je suis pour que ñu def recours bi pour que pour bu ñu mën a amaat nag ba ma mën a gisaat Amara saa man Sénégal la lay béyee coupe du monde IDS bi Sénégal laay si supporter moom laay xool lu si am yéen a gëmul naa ne coupe bi war a mën a ñëw donc euh, xamu noo leen ko xalaatee yéen selon vous information bu génne lii à la euh, dernière minute c'est fait fédération sénégalaise de football def nañu seen recours ngeen xamee ko noonu ñu bind leen ñuy bind ek man wóolu naa fédération mën nga leen dal nag ki lu nekk mais affaire de bind rek article jaar na fii dugg na fii ñoom rek <laughs> saa loolu bu loolu de waa maa ngi fàttali waa Ligue 1 bi ñu ñëwee ne naan non temps yi Covid bi mën ñu bàyyi suñu joueurs ñu dem Afrique ak loolu fédération sénégalaise de football si loolu la tënku ba am seen i joueurs xam naa yéen a koy fàttaliku ba joueurs yi mën demaat seeni i parce que fédération sénégalaise de football moo bind ñëpp tënku si ay si fédération bi mu bind yeneen pays africains yëpp ba mën a jël seen jour donc si côté boobu wóolu naa leen ndax day entre nag ndax entre loolu beneen débat ni mu mënee ant noonu la bañee mën a antu ñu bëri amuñu si yaakaar am nañu si am yaakaar en espérant nag ah pourquoi pas mu sotti man day gëm naa ne war na mën a sotti à na na lay na lay na lay demee ci commentaire wax leen seen xalaat seen gis-gis jaajëf